ci topp. Hillary Clinton après Usain Bolt. ayca ñu dem ñu dem Taïwan waaw ñu dem Taïwan euh, maa ngi leen doon wax tout à l'heure jeu boobu nga xamante ne Pokémon Go la tudd euh, dañuy jël Pokémon yi indi ko ci biir nature bi donc chaque instant dañuy joxe alerte à partir de application bi nga xam ne mun nga ko télécharger euh, soit si sa si sa smartphone dañ lay jox alerte ne benn Pokémon mi ngi telle place léegi bu ñu ko defee ñëpp dañuy daw foofu dem pour jëli Pokémon bi lii Taïwan la woon donc biñ ne benn Pokémon Euh, benn jardin bu mu nekk jardin public nit yëpp dañu daw dem foofu donc actuellement en fait ñoom information bu baax la mais ñoom ñëppay daw dem foofu donc mun nañu. ñii ñëpp ci dañuy jouer Pokémon. ñëppay jouer nii nii nii. tey benn bi fa nekk Ronflex la tudd ci Pokémon yi gën a raar la bokk donc biñ nee mi ngi foofu. yii a fàqanoo dem. mouvement de foule lay créer doo comprendre sax lan moo xew. mais li wóorul day mel ni c'est ça le problème en fait wóorul actuellement am na nit yoo xam ne yu bëri dañ leen arrêté ndax ay wër ay. ah oui ba mujj ah ñuy def ay infraction actuellement heureusement ba amagul fii ndax ñun moom xam naa ne bés bu fi amoon ñu wàccee. ñun taluñu ndax ñoo dàq toppandoo. Ah, non ils ont raison parce que wóorul lii nii euh, di mun ngeen ci gaañante c'est c'était un jeu à la base mais personne ne s'attendait à ce que mu am engouement bi parce que à chaque fois que ñu ne Pokémon am na fii ay milliers de personnes ñooy dem pour daw jëli ko te benn lay doon pour ngeen jëli benn xëccoo mun na ci am xeex mu na ci am actuellement finalement non du lekk. xam nañ fi ok moom ça fait longtemps que ça existe en plus. ça fait des années avant c'était ay euh, yoo xam ne xale yi dañ ko doon échangeante mu am dessin animé ngay wër Pokémon yi ñuy gën a am pouvoir mais léegi dañ ko def. en nature. Euh, grandeur nature pour nit yi dem di ko rechercher ji c'est un jeu c'est vrai c'est pour faire pour c'est fait pour s'amuser mais man damay ragal danger juddu ci. voilà mu ngoog danger yaa ngi am en tout cas dans presque beaucoup de pays loolu exemple. Euh, euh, Tokyo la. Euh, mm. am na ay. Taïwan dëkk yu bëri yoo Taïwan voilà dëkk yuñ ko yuñ ko tere. fu nekk lay am parce que dañu dem bay am ñuy dugg ci. mais da ngay da ngay gis ku yor téléphone am di wër Pokémon bi ak GPS bi ba doo xam lan ngay mbëkk doo xam kan ngay taseel. c'est ça devient dangereux actuellement mooy phénomène. phénomène ça fait fureur dans le monde. mais exeggul fii am wala fu mu jëm ak ñoom ak lan mm. moo ci topp. alors Hillary Clinton. <laughs> Hillary Clinton Pape Cheikh daf doon def euh, déjeuner euh, boo xamante ne pour fundraising la collecte de fonds en vue de campagne bi nga xam ne en mois au mois de novembre lay am présidentielle yi euh, déjeuner bi nag Leonardo DiCaprio ma ko waroon organiser mais finalement dafa am empêchement donc mu jox ko Justin Timberlake ak jabaram ñu organiser ko devineel pour dugg ci déjeuner boobu ñaata nga war a joxe par personne mm, mm. et une cinquantaine de personnes kese la ñu invité woon mm, par personne c'était trente mille pour nga dem rek déjeuner mais c'est pour soutenir Hillary Clinton parce que ñoom actuellement li ñuy bañ mooy Donald Trump nekk président dañoo dem sax ba artistes yi nekk Hollywood lancé benn pétition pour euh, tuddee ko s'unir contre la haine parce que nee nañ Trump actuellement euh, dafay euh, tooñ nit yi di leen dénigrer ñu ci mel ni noir yi mexicains yi latinos yi musulmans yi jigéen yi réfugiés yi transgenres yi c'est-à-dire il est raciste contre tout et n'importe quoi donc ñoom nee nañ loolu bëgguñu seetaan ba kooku di dem di diriger seen dëkk c'est un danger pour ñoom Hollywood comme chaque année ñoom démocrates yi la ñuy faral actuellement ñi ngi def campagne pour que nit ñi mën a élire Hillary moo leen jaral jël seen mille euros dem ci des dîner boobu. mu voilà le coup est déjà parti malheureusement pour Donald Trump mais barki démb rek euh, mu ngi euh, jéem a bàpp euh, afro yi ñu ñuul ñi. alors que bu ñuy tàmbali campagne daf leen doon ah, yàq melengaan li xale yi naan matical mais commencé na bàpp pour nit ñi afro yi mën ko bëgg mën ko comprendre et malheureusement pour lui nit yi xam nañu jikkoom ba pare mm. loolu moo tax dëkk yu bëri boo fa demee actuellement dañoo jël statut wam def ko ci dëkk yi ku nekk di di xool ñii di nëppati ñii di def lu leen lu euh, comme image bi xaw a bizarre moo tax du ñu ko wane. ci hmm, Yeewu Leen bi waaw c'est très moche l'image léegi waxal Usain Bolt. ayca Usain Bolt. <laughs> Usain Bolt Pape Cheikh dañuy wax ci moom pas pour performance yi nga xam ne def na ko Rio et ça fait longtemps que mu koy def mais pour euh, buzz coow li ko topp actuellement am nañ foto yi euh, dafa am benn jeune étudiante boo xamante ne Usain Bolt dafa taseeg moom boîte bi mu taseeg moom boîte mu invité ko ànd ak moom pour terminer la soirée donc bi ñuy terminer soirée bi gel bi dafa jël ay selfie moom ak Bolt. Mm. après pour se la raconter ci copinam yi mu envoyé image par WhatsApp et finalement image bi génn dem Facebook internationaux yëpp reprendre ko mu jur coow parce que Usain Bolt dafa doon waaja a marié actuellement et doon waaja a marié euh, mi ngi tuddu euh, alors laissez-moi Cassie Bennett gel boo xamante ne elle est juste magnifique photo bii nii mooy photo bi ñu njëkk a jël boîte la nekkoon di Turc kii mooy Cassie Bennett nekk euh, copinam bi nga xamante ne man ku rafetee nii xaw ma noo koy amee di ut keneen ku mel nii donc kii mu passel nuyu bi mi ngi tudd Jadi Durand moom nag def nañ ay recherche si moom pour xam la nee nañu que veuve kenn koo xam ne baron drogue la woon au niveau de du Brésil parce que boo fanaanee ak artiste bu mel ni Usain Bolt ñëpp dañuy wu si yow. Mhm. moom nag li mu wax média yi mooy que dafa ruus photom yi génn xamul woon ne Usain Bolt c'était un athlète boo xamante ne dañ ko xam partout dans le monde les gens pensent que daf koy wax juste pour le dire mais elle dit qu'elle a honte que photo yi génn que bëggul woon siiw moo tax mu génnee ko ñëpp moom la ñuy war actuellement mais Usain Bolt yemul ci lii parce que bi mu jógee fii ba nit ñi publier photo yi ba koy dafa dem passé soirée ak yeneen deux jeunes mm. donc les gens se demandent ba xam est-ce qu'il a réellement envie de se marier est-ce que du mariage bi moo ko tiital mu nekk inconsciemment di ko mais xam naa ni copine bi mu am war koo sa fiancée plutôt ça fait deux ans qu'ils sont ensemble am xale mel nii di seeti keneen moom ay caaxaan voilà donc euh, Usain Bolt xoola kii la on ne sait pas. non moom la nag parce que preuve à l'appui la quand même xale euh, étudiante la Brésil elle a a et puis seen Bolt tam xale la. xale la mais xool a kii rek. xale la eh, waa ki mooy beneen. Ah. beneen bi ngeen di wër yéen ñëpp kii la mais xool a kii rek boo amee kii looy doyee keneen. enterrement de de vie de de vie ah, bi du noonu de enterrement bi feet la rek yow ak say xarit mais pas enterré ak ay yeneen yeneen xale yi gën. c'est que Amérique latine nag <laughs> mais Bijou da ngay xam ne Amérique latine xale yi dañu coquine. surtout en Brésil au Brésil waaw coquine nañ mais yow yow yow wanaat leen ma copine. dañu coquine ngir yàlla wanaat leen ma beneen. Alfi xoolal kii mais Bijou kii kanamam rek nga gis. mais xëy keneen yaram bee gën a rafet. waaw xam nga nag au Brésil en Amérique ah, latine. xam naa satisfaction ak femme rimel. yow da ngaa ñëwaat. ah déet Mado bu ñu. la femme nag xam naa la femme elle est satisfaite xam naa. si. ah elle est boo bàyyi. ah non da da ngay poser question. on est des femmes on répond euh, la. Brésil boo sonnee rek rek. waaw kii kii Alfi nga naan ma kanam bi rek. lii ah. yaram bi baaxul lii. kii mooy kii mooy lan kii mooy fiancé bi. mooy fiancé bi. ana ana ana euh, étudiante bi. étudiante bi mi mi ngi mi ngi ne man mere naa ko trop indi photo étudiante bi. waaw ñu xool étudiante bi ñu def comparaison rek. man yéen yéen a ma dàqal kii ah. ñu xool étudiante bi a gën a rafet kii ah. ana étudiante bi. loolu moom mu wóor nañu moom loolu wóor na ma man. Ah waaw. ma waxaata ah. cat la bu ko bu ko topp rek moom. Euh, Usain Bolt cat la rek. <laughs> yéen da ngeen bëgg lu yomb de xale góor yi nga naan cat bu ko topp. cat cat bu ko topp lu cat dara cat bi moo ko fekk bu waat yónni garde kooram yi pour ñu jëli ko. cat cat moo ko topp donc voilà ek euh, j'allais dire Exidex mais Usain Bolt merci beaucoup Bijou pour information internationale on reviendra vers toi euh, ci kanam pour yeneen yu